yaakaar naa ministère de la santé gàcce ngàllaama moom ak bépp nit boo xam ne mu ngi foofu di liggéey lu ko daree ci médecin ba ci gardien yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi. Moussa Diakhaté lu ñuy dégg ci décision président Pape bu wax nii ci euh, xalaati experts yi la ko teg ñu bëri dañoo jàpp ni dogal yu njëkk ya xëy na experts yee ko digaloon waaye yu mujj yi mel ni que situation sociale bi moo ko ko imposé ba li tuddee woon assouplissement ñenn ñi jàpp ni teggi tànk la. Mm-hmm. situation koom-koom bi nga xam ne nii xaw na nësëx sax parce que activités yi tënk woon na loolu moo ko gën a digal loo ci jàpp yow waaw li ñu ciy jàpp rek mooy nii feebar amoon na sonaloon nañu lool ñu jëloon ay mesures bu ñuy tënk li mujj génn ci wax ji dafa mel ni dañ fallax falax wala jàllax feebar bi daa mel ni président danu ni jéem naa la ma ca mën góor leen ak feebar bi ndax tey bi ñu jël mesures yi liñ daan lor ci ay bés tey moom lay lor ci fan pour wane ni tey la aali kala ji gën fee nekk dëgg la naam xalaat la situation économique am na solo mais dañ ñu feebar bi li am ba am du neex a wax mais c'est une forme de démission. yow teggi tànk. teggi tànk bu mag sëkk. léegi lu ko waral ndax situation économique bi moo ko poussé ndax euh, tension sociale bi la dama ne ñaar yëpp a ngi ci waaye ak lu ci mënoon am rek lu ñu waroon waxtaanee la ba tax na ñu ngi koy xaar ndax itam ñun ba mbir yi amee en tant que parti politique dañoo summi mbubu parti bi sol mbubu citoyen bi mu woote ñu wuy ji ko bi ñu demee wax ko ni ñu xalaatee boobu ba tey. en tout cas li ñu weer ñun bokk gis-gis kenn dégguñu ñu wax ci ñu ngi xaar nag loi d'habilitation bi arrivé à terme ñu xaar la bilan du président le compte bi parce que il nous le faut foog ñu wax fan la mujjee ndax bari na lu ñu naqadi ci diggante bi mais kenn dégguñu ndax fi réew mi tolloon la ci naqar fi mu tolloon la ci musiba ñu ne woon tekk bàyyeeku lépp waaye ci biir waxtaan wi dinaa la wan na li lajj yi bari na te lajj bu nekk dañ ciy teg baaraam moo xam au moo xam au plan alimentaire la au moom xam ne au plan ni nga koy wax résilience bi la ñu wane ni lu ci bari dañ ci lajji parce que amaana ni bu dee experts yee ci wax yu ci bëri dañ leen beddi le cas Seydi dégg nga ko fi defe naa ni am na fu réew di toll. Mm-hmm. am na yoo xam ne dañ ko war di ko moytu waaye su fekkee ne ñi war a dige ñoom ñoo ko jëfee day yàq lu bari ci doxalin bi te dinaa la wan ci yoon wi ni gars yi danoo daw bàyyee ñoog feebar bi. ndax ku la bàyyeeg feebar bi joxul sa masque ba sot masque. Hmm. benn masque état jëlu ko jox ko nit ñi ba pare nañu góor góorgóorlu leen ban mesure lañ jël pour nous permettre d'être dans ces conditions là ngeen dee leen raxasu te boo sangoo doo añ ndax ndox matatul pour dire y a tellement de choses qui se sont passées dans cette dans ces décisions du chef de l'État yenn yi jaaxle la ragal la wala lu mu xew wala li feebar bi bees moo tax de façon ci biir waxtaan wi dinaa la ci wax ni la domaine bu nekk. Mhm. fi nga xam ne nii nañ ko doxalee mënoon naa gën a yemb ni mu mel tey kon jàpp naa ni bi ñu dégloo président.